seen yéene jàkkaarloog président Macky Sall ña ngay xamle ay manifestation yoo xam ne rek jàpp nañ ko war ko amal fii ci réew Sénégal ñaar ba juróom benn fan ci weeru mars atum 2024 waaw waaw lu jëm ci nu ñu war a def rek ngir sàmmonte calendrier électoral bi nag loolee les échos ma nga cay dellu siwaat ne fi mu toll nii nag ñii nga xam ne bëgguñoo dégg benn yoon ñu ne tuxal nañu élection yi nag taxawal nañu ab front de résistance boo xamante ni nii rek ñii di waa F25 waa F24 aar suñuy élection ak yeneen i way politique nag ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo fi mu toll nii acteurs yi yëngu ci wàllu koom gi fii ci réew Sénégal ñoom ñëpp ña leen di avertir yeneen i avertissement yoo xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku jamono ji mu di parti Benno Bokk Yaakaar ci pëccëxoo gu méttee métti ca lañ nekk l'observateur dellu siwaat nag ci ñàkk déggoo gi am ci loi amnistie bi nga xam ne rek moom la ñu bëgg a taxawal ci réew Sénégal attaques yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci seen kaw candidat division bi nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci biir APR date bi nga xam ne jàpp nañ ko ci wàllu élection yi ak lu jëm ci wàllu transition bi maître Sidiki Kaba ma ngay tracé ay yoonam ba noppi nag diwoo juróom-ñaari sage yi ngir ñu daal di def seen kéem kàttan ba Sénégal du tàbbi ci guuta ngir moytandiku nag musiba mbaa ba kumba daal di dal ci kaw réewu Sénégal maître Sidiki Kaba ma ngay xamle ni ñu war a doxalee ginnaaw ñaari fan ci weeru avril Macky Sall ma ngay dëggal boppam ci day dem nag wan ginnaaw réew Sénégal yéenekaay bi di Vox Populi nag dellu siwaat ci ne conseil constitutionnel su boobaa dafay tënku nag ci article 36 alinéa 2 bii nag jëm ci wàllu constitution bi nga xam ne rek dafay xamal président de la république nag ne doo mën a dem nag nag bàyyi noonu réew mi mën ngaa des di jiite réew Sénégal fileeg ñaari weer ngir bu ko defee nag ki lay wutu ci réew Sénégal nga mën koo jébbal lenge yi mbaalu ko mooy rek waa conseil constitutionnel dëggal li nga xam ne rek moom la ñuy oowee vacances du pouvoir te su boobaa nag président bu assemblée nationale mooy doon ki nga xam ne rek moo fi wutu kii di président de la république te su boobaa nag mën naa jur ay gàllankoor ci fukki candidat yi nga xam ne rek ñoom ñoo waroon a dem ci élection présidentielle yi ndax nag bi nga xam a daal di soobuwaat ci leneen bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi maître Sidiki Kaba di ministre de l'intérieur lum ci mënti doon daal lii xeeñ neexul benn yoon ci bés bi le jour jëm ci président Macky Sall mi nga xam ne rek ma ngay sàkku ci conseil constitutionnel mu daal di xool ku ko mën a wuutu ci bopp réew Sénégal Abdou Aziz Mbodj bokk ci parti bii di PRP ma ngay xam ne ni nag ak ku ko mën a wuutu ci bopp réew mi rek mënu fee ubbiwaat ay candidature enquête yëglekaay dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek njiitu réew mi yëkkati na ko di xupp jëmale ci date bi nga xam ne rek ca la war a ginnaaw réewum Sénégal ma jambal jaañ Diagne di xam ne ni président Macky Sall nag dina bind conseil constitutionnel ngir mu daal di nag xool kan moo koy wuutu ci bopp Sénégal maître Sidiki Kaba di xam ne ñaar ñoo xam ne rek jàpp na ne ñoo ko fi mën a wuutu nag bu loolee amee ñaari fan ci weeru avril Amadou Ba mi mandataire Bassirou Diomaye Faye nag di xam ne ni loolee Macky Sall di def lépp nag jubluwu ci lu dul ñu daal di koy bàyyi mu des di jiite réew réewu Sénégal ko Quotidien ma ngay xam ne ni Macky Sall mii mel na ni ku pare nag ba noppi ngir dem bàyyeeg réew mi boppam du amal élection présidentielle te du jébbal lenge ci bopp réew mi juróom-ñaari sages yi jamono ji nag ñoo yore kàddu gu mujj gi addu jëmale ci leneen mu soxal la solo yëglekaay moom mi dellu soit ci suuxu gaal gi nga xam ne rek dafa yaboon ay migrants yu jëmoon ca biti réew far mujjee suux ca douane bu Saint-Louis bilan bi nag jamono ji ma ngay gën di yokk ndax toll na ci ñaar fukki bakkan ak juróom-ñaari co des ñeent fukk ak juróom-ñaari rescapé bokk na ci nag ay nit yoo xamante ne nii ci sous région bi la ñu bàyyeekoo gi jiite bopp gouvernement bu Sénégal Amadou Ba démb dem na doon mastaw nag ñooñee di ay rescapé réew mi people la nag tey jii séq nag waxtaan actrice bii di Nabou Guèye bokk ci série Babel moom nag dellu siwaat na ci li ko dugal ci boobee série waaye tamit taxawaay gi nga xam ne rek am na ko ci jouer rôle bi nga xam ne rek moom la ñu ko jox yër leen bi la yëglekaay séq na ceeg ànn Thiaw waxtaan wu yaatoo yaatu ñu àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram stade yëglekaay ma ngay dellu siwaat ci Koulibaly mi nga xam ne rek jamono jii mi ngi ci yoon ngir dem ci Arabie Saoudite wax ci suñu lamb ma ngay dellu siwaat ci wàccaay wi nga xam ne rek waa écrit Falaye Balde ñu ngi koy waajal ku ci mel ne Ama